90 ngeen mën a addu joxe seen xalaat ci li nga xamante moom mooy euh, ponk yi ñuy waxtaanee bokk na ci assise de la justice yi ñu war a amal ni ki suba euh, ñenn ñi jàpp ne euh, léegi ne perte temps la boo xamante nekk dañ ko ci amal ñu bëri jàpp ne mënoon nañu jël rek li nga xamante moom moo di conclusion assise nationale yu 2009 yi. ñenn ñi sax jàpp ni am na ci ñoo xamante nii nag euh, tudd nañ seen tur te ñu war a teewe ci ndaje boobu lee euh, ñu ci mel ne ñoom kele dër ak ñu ni mel ñu jàpp ne ñooñu nag euh, seen place du woon foofu ndax ñoom dañoo laale ci li nga xamante moo jëm ci wàllub yoon mu mel ni am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum mu mel ne kooku asalaamaaleykum. waaw kilifa gi ñu ngi lay siyaar. waaw ñu leen di siyaar bu baax a baax. macha allah waaw di siyaaree auditeurs yi jàll yëpp. Mm-hmm. waaw Xaadim euh, Mbengue Ibra Ndiaye ak maam kii maam Mor Ñaam Mbacke Baare. Mbacke Baare. Mm-hmm. waaw ñu ngi koy dellu bu baax a baax di leen siyaaree. macha allah. waaw man moom maa ngi ñëw euh, dellu naa sax sa kii bi. Mm-hmm. mais damay jaajëfal Birame Souleye Diop. Euh, ak ay ñoom kii maître ngeen Demba Touré. moom ñu demee Demba Kédougou. ci wàllu or bi nga xam ne bi ñu juddoo ba léegi ñun mosu ñuy gis sax. usine mhm. boobu dégg rek lañ ci yàgg am. Mhm. même journaliste yi la yéesu daan wax sax. amuñu mhm. woon sañ-sañ ko. démb dem nañ ba gis ko ba metal ngeen dem Touré yore yore ci boîte bu am doole sax. nga xam ne ñu ngi doog gis nitu Sénégal nit ku ñuul yor ko tubaab bi rek lañ naan gis ñu koy yor. kon loolu xel mu dal la. kon wane na ne maanaam changement am na Mm-hmm. tubaab bi gañaar gañaa gi leen xam ne président Diomaye yàgg na leen ko wax ak président Sonko. Mm-hmm. loolu mooy am te bi ko Sénégal yi gisee dem ñoom ñëpp seen xel dal na. Mm-hmm. waaw en tout cas daal li commencé di génn daal di feeñ suñu xel dal na ci ndax lu matul deux mois. Sénégal commencé gis résultat yi sant yàlla la. waaw kon Sénégal moom dañuy sant yàlla di xam ne yéex nañoo jot. ci ku mel ni président Diomaye yéex nañoo jot ku mel ni président Sonko. ndax xel mu dal la ñu am saa boo génnee doo am direction. Mm-hmm. doo xalaat ku la rey doo xalaat ku la jàpp. Mm-hmm. doo xalaat kenn ku la tiital senegal daal ci jàmm la ne. Mm-hmm. waaw ñenn daal ñoo fi nekk na danañ xañ jàmm nit ñi. mooy waa APR yeeg seen saagakat yooyu ñu ànd ak. ndax maanaam réew bu ñu la ko joxee dou ans Sénégal yi gisuñ ci seen bopp nga dëkkee fi rey ak tëj toroxal Sénégal yëpp def lu la neex ci réew mi bu Sénégal yi jël seen décision nag sans ce président xanaa nga may réew ma jàmm. bu fekkee ne nag ñoom bëgguñu jàmm comme ni ñu koy waxee si Abdou Nguer noonu ak plateau bu mel yeneen plateau yi ñuy dem. yu mel ni TFM ak Sen TV loolu état bi dana ci jël responsabilité am ndax journaliste bu ñu koy wax. Mm. mooy da ngay jàll surtout est vrai. yow mii fi ne nii bëri na lu ma déglu sànq ci yow laa ko xamee. Mm. parce que da ngay jàll xibaar yoo xam ne dafa wér te wóoru nit ñi di ci euh, intervenir di ci bàyyi xel. kon mm. journaliste yi joxeel say xibaar yem ci. mais bul sos bul jaxase bul yàq. waaw xam nga li nga wax ci Bah Diakhaté tamit. Euh, loolu moom justice bi na jël responsabilité am mu teg ko ay daan yu diis yoo xam ne dootu ko xalaat keneen dootu ko xalaat parce que réew mi saaga yi nga xam ne moo fi nekkoon ñu ko laan jiñ waa Pastef yi waa Pastef yi duñu oon duñu loon saaga ñoom ñoo laan saaga créer ay faux compte ñuy saaga ñu def fa profilu Sonko loolu nag fi ne moo commencé feeñ ndax bu fekkee ne yow da nga laan jiñ parti bi ne ñoo laan saaga duñ duñ euh, kii réew mi léegi nga profité saaga fi saaga woo xam ne amul benn journaliste bu si ñemee jaar. man li may dégg rek tout le temps da ngay dégg nit ñi naan ah la mu wax la mu wax waaye doo dégg ñu teg ko doo dégg nit du jaar ci. Mhm. waaw li la waa ji wax nag na la El Hadj Diouf nee na li mu wax mooy dëgg parce que El Hadj moom man jàppuma ko avocat. parce que man déglu naa ñu bëri ñu xam ne dañoo bokk ci justice bi nee nañ maanaam loi yi sax maîtrise wu ko mhm. mais. nee na képp ku xamante ni xew la nga dara nga jël ko mhm. da bëgg indi coow dëgg réer mhm. yow kay da ngaa saaga Sénégal yi dégg nañ li nga saaga mhm. loolu jarul sax jël avocat parce que loolu kenn mënu ko layal parce que lim saaga moom ak imaam bi nit ñëpp dégg nañ ko. waaw ñenn ñenn ñenn ñenn ci sénégalais ñoom li ñuy li ñuy li ñuy laaj moom mooy euh, lu tax ñu xam nga saaga moom kenn du ko rafetlu ci espace public bi euh, ba jaxate xëy na lim def ñu ci bëri ñaawlu nañ ko. mais ñu ci bëri dañu jàpp ne euh, li ba jaxate def ba ñu téye ko am na ci ñoo xamante nii def nañ ko te te bokk ci ñoom lu ci mel ne Ousmane ah, Tounkara ah. lu ci mel ne ki nga xamante moo di Azoura Fall dégg nañ ko fi mu saaga président de la république ba tey kenn àdduwu ci procureur autosaisir wu ci est-ce que aussi euh, yoon bi ñu bëgg a lijjanti est-ce que du am euh, deux poids deux mesures. non non loolu du am. Mhm. Assoura mhm. Fall. bi muy wax loolu. boobu fekk na président Diomaye defagul prêter serment. Mhm. loolu ñëpp xam nañ loolu boobu Macky Sall fi mu am ñu mu doon tontu far juumaale foofu. kooku la mu wax sax maanaam bu fekkoon ne saaga boobu noonu sax. la Bah Diakhaté wax. Mm-hmm. man gëm naa ne luñ ko ci toppee duñ ko ci toppee. parce que mm-hmm. moom li mu wax sax demeewul nii ak ne ko Bah Diakhaté waxee. Mm-hmm. Bah Diakhaté dafa toog def live di détaillé ci nit naan ko lii nga lii nga lii nga la wax ci wax ju ñaw sosal ci yeneen doomi aadama. même moom bu fekkoon ne sax Sonko daf ko baal Sonko bu no Sonko sax topp ko ndax pelante wu ko même bu fekkoon Sonko daf ko pelante ba pare baal ko ñoo ñooñu noonu mu tudd seen tur mën nañ ko pelantaat. mais est-ce que Assoura Fall ba muy tudd ay nit nit nee non Euh, Ousmane Tounkara mi ñuy wax tamit ko ci boole Ousmane Tounkara li ñuy wax moo ko wax moom génne na boppam ne ay vidéo yuñ monté la te loolu ku déglu kàddu bu fekkee yéen xam ngeen image ak ni muy waxee da nga xam ne lii dañ koo monté amul loolu loolu maanaam loolu taxaw naa ay affaire de diw wax na ko diw na wax na ko fi loolu justifiewul dara ñii dañoo taxaw jël seen temps di saaga nit di wax wax ju xamante ni taxawul fenn amul kenn ku ko mos a ñemee wax amul kenn ku ko wax mos a Macky wax mos a wala nga wax dara makki Sall wala waxuma la sax nga saaga ko de da ngay génn wax dëgg rek. Mhm. balaa ngoon ñu jàpp la. Macky Sall moo fi jàpp ba lu ëpp mille sénégalais ñii mu rey leen ñii mu tëj leen loolu wax leen gouvernement bi def na ko. Mhm. non ku ma am ndey ku ma am ndey bu ngeen di wax loolu amu fii mhm. parce que li leen a xamal amu fi est-ce que léegi maam ñi nga xamante ni jàpp nañ leen. mënoon na leen a tëj 6 mois ñu doog leen a àtte. mais xoolal Fra Ganaar dañ leen yóbbu tey la leen di àtte te kañ la leen jàpp. loolu nag moo lay xamal na structure bi changé na te aussi kan moo autosuffisant wu du du kii procureur moom moo autosuffisant wu mais président Sonko ba léegi palantuwul de kon structure bi changé na ndax bu changé wuloon gars yi mën na leen bàyyi foofu ñu tëdd fa ñu nekk six mois ba un an ñu doog leen di àtte mais bi leen jàppee léegi yàggul te gis nga ñu ngi leen di àtte kon loolu waroon nañ ne yoon am na ku mu am ndey ku mu am ndey amul fi waaw ñu koy wax ñëpp mooy waa affaire yi nga xam ne ñoo bëgg a taxaw ne ñoom ñoo yàq réew mi te kenn du fi amee jàmm kenn du fi gouverner si jàmm. ñoom nag bëriwuñ seen làmmiñ rëy dañoo nekk fii nii di jaxase di yàq di wax mais seen wax yi mënul yegg fenn. Mhm. mais xam ne réew mi dafa changé. Sénégal ci yoon la jëm ci day tegu ci yoon te day avancé. Mhm. loolu ñoom mënuñu si dara. ok jërëjëf ci réew mi Sénégal yi bàyyi nañ leen wuccu nañ leen. Mhm. waxatuñ seen wax. kon nañ dimbale nit ñi ci seen làmmiñ yu rëy ñoo xam ne. Sénégal beneen dimension la nekk. Sénégal yi léegi dañoo tranquille dañoon na si jàmm dundatuñ pression génnatuñu am dara lu leen jaaxal wala ñuy xalaat ku leen rey wala ñuy xalaat ku leen torturer wala ñuy xalaat ku leen dóor bal amatul benn xalaat boo xam ne Sénégal ñu ngi koy am. Sénégal yi daal fi nii li ñuy dund jàmm la xamante ni daal dañuy ñaan yàlla na continuer. di ñaan li nga xamante ni daal dem nañ ba gis ko ci ore bi yàlla na continuer ba nga xam ne dañ ciy wax ak ñoom. waxin boo xamante ni dana si juboo ba xamante ni maanaam dana si Sénégal dana ci mën a am cinquante ok jërëjëf mhm, mhm, jërëjëf di wax nag tamit sa waajooju noonu sant Diallo moom mhm. damaa yaakaar ne Guinée la nekk waaye li nekk Sénégal yow nekkoo Sénégal bëgg a wax ne Sénégal yaa ngi dund problème Sénégal balaa nga xam ñu ngi dund problème wala dunduñu problème nga nekk mais yow Guinée nga nekk wax ñi la nekk Guinée mais bu ñu wax lu nekk Sénégal waa kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ko sant bu baax ci kàddu yooyu Euh, di wax ne rek nañuy àddu rek euh, jëmale ci li nga xamante moom moo jëm ci jotaayu waxtaan bi euh, ku ci nekk am nga sa gis-gis ci réew mi nga nekk ci biir réew mi nga nekk ci biti réew ku ci nekk rek am nga gis-gis boo xamante nii am nga sañ-sañ joxe ko ci li nga xamante moom moo di espace politique bi mel na am na ku nekk ci buumu jokko bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. di nuyu yëpp. macha allah. di rafetlu émission bi à chaque mm-hmm. mm-hmm. di jiital samay wax ak cant ak ngërëm. ñu mm-hmm. gis dee bu ñu génn def marche bu am solo. muy marche diggante Palestine ak Israël. pour li Israël li def Palestine. mu arrêté ko. gis naa Sénégal yi démb ñu génn. kawe kawe. wan ne ñi ànd ak. Palestine te li def ñu dàq ci. muy lu am lu am solo lool ñaareel ba may wax ci lii président woote suba mhm. muy assise bi mhm. muy lu am solo lool yoo xam ni sénégalais bu ne mhm. ma yàkkamti woon na pour mu am ndax dañu dañu nekk ci réew moo xam ne nekkoon ci moo xam ne nii dañ naan est-ce que yoon am na ci réew mi yàgg nga koo dégg waaw nga xam ne maanaam da nga daan ba soo tuddee buñ am na ñoo xam ne buñ ñee dañoo war a wuy joon rek xam nga la ci toog Mm-hmm. mooy di mooy moo xam dañoo tooñ moo xam duñoo tooñ waaye ñoom yàgg yàgg dañ leen tëj. Mm-hmm. nga gis ñoo xam ne nii dañ daan toog wax saaga wax loolu la neex. Mm-hmm. wax maanaam waxuma ay faux billets ak yooyu lañ leen cee jàpp ay faux billets ak lu la jàpp nañ leen ci. waaye duñ dem lañ jàpp. loolu la Sénégal yi demoon ba ne est-ce am na ci yoon ci ci ci dëkk bi. dem ba indi benn polémique boo xam ne nii bu continué woon Sénégal mën nañoo xëy suba rek yàlla tere dugg ci benn. musiba boo ko xam ne nii kenn doxam mu toll ndax am réew hmm. àdduna lépp yoon a ko yor hmm. gis nga aw aw aw yoon fu mu hmm. na ñàkk lépp na bañ am dara waaye na am yoon bu amee yoon rek lépp la koy am te ñun loolu la ñu rafetlu woon mille neuf cent soixante ba tey mën nga ne Sénégal amul aw fi nekk yoonoo xam ne tubaab yee ko tabaxoon pour def ko pour seen intérêt yi bopp ak intérêt ñi fi ñi leen fi nekkal bis boo waxee ak ñoom ànd ak ñoom yow mu problème waaye bis boo jóoleeg ñoom pare nga pour dugg ci kaso ba mhm. Ousmane Sonko mii ñaata yoon lañ ko fi woolu ñaata yoon lañ ko fi bu ndoxataan lu la ñu def ko mhm. Sénégal yi vidéo yaa ngi ndax lan génne ay xibaar yoo xam ne nii wax ne Sénégal kat lii impôt député yi duñu fay impôt mhm. wax maanaam quatorze quatre-vingt-quatorze milliards yi ah trente-neuf milliards yi may may ñaar yooyu yëpp nga xam waxut pour boppam waxut pour keneen ba wax pour jëla ko doog fi wax kon lii day rafet lool ñu jël ko dajale ci Sénégal yëpp man nag maa ngi ciy woo ñu woo ci bépp sénégalais ba ci ki nga xam ne handicapé beeg ki yàlla dogal ay sutam muuroo ku mën doon lañ la woo toog ñëpp am xalaat ci réew mi hmm. la woon daa ni gis nga bu njëkk dañ daan jël ñoo xam ne nii gëmuñu Sénégal bëgguñu senegal xamuñu senegal woo leen jam ñaajo ñu na xujju toog dara ñëw leen loolu toog di wax maanaam di maanaam di jaayaate rek di tagg président bi nga nekk di ko waxal lu baax bu ko defee ñoom ba yaakaar yi bëgg Sénégal seen intérêt bopp rek muy toog muy dox buñ demee ba ëllëgee lañ doon wax lépp gëmuñ ci dara bii paa nag nañ woo ñëpp sénégalais ñëpp sénégalais bi am milliard sénégalais bi am ñaar téeméer ki am fukki dërëm ñëpp lañ leen woo kenn ku ne am ku mu présenté ñu toog ci taabal ji waxtaane réew mi allo. waaw maa ngi dégg bu baax.